waaw damay fàttali ne bu nee explosif maam bomb wala luy kalaate ñoo ne jàpp nañ ci téeméer juróom fukki tonnes ci Thiès ci ab tali day nit ñi dañuy yaakaar ni euh, yëfi ñaaw téef la fekk du loolu li ñu tuddee euh, explosif wala substance mooy lépp loo xam ni boo ko jambee jaxase ko yeneen mën na indi ab tàkk-tàkk gaz bi ñuy liggéeye suñu kër yi explosive matière substance explosive la essence bi ngay bi ngay bi ngay dawalee sa oto d'ailleurs booy jàng sax tubaab dañu naan la dafa am benn explosion bu ndaw buy nekk ci moteur bi ak yeneen ak yeneen yooyu mën nañ tuddee substance explosive dafa fekk nag ci euh, mine yi maanaam fi ñu jëlee xeer bi xam nga xeer bi euh, dëgër na dëgëraay boo xam ni il faut mu am ay ndell yu ndaw ndawaan yoo xam ne dañ koy utiliser pour man a jot mën koo toj bala ñu koy toj ko tojaat ba ngay mën a am béton bi nga xam moom lay liggéey liggéeyee loolu moo ci am mu am une quantité boo xam dañ ko acheminer par camion jëyee ko Ndakaaru yóbbu ko dans une entreprise entreprise bi c'est dépoté wàcce nañ ko ci kayit yi ñu laaje woon nag pour mën a transporter affaire bi këyit yooyu la naan ndax kayit yi euh, joxe nañ autorisation am déet loolu boo leen jigee entreprise bi dina leen leeral dans quelles condition lañ def transport bi waaye daal li ma gën a amal solo mooy que sénégalais yi xam ni du ay ndell yoo xam ni dañ koo jàpp ci tëli ñaaw téef wala loo xam ni xamuñu ko wala lu ñu jëlee feneen du fi ñëw loolu vraiment bu fekkee am na également il faut ñu préciser que ce n'est c'est loin d'être le cas maanaam loolu nekkul loo xam ne gis nañ ko maintenant nag moo ngi mel ni nga yor sa oto di dem am na foo xam boo jógee fi dem ci nan la laaj sa permis laaj la sa kii la sa transfert de nangam nangam yooyu ay contrôle la yoo xam ni du ñàkk dans le cadre de de cette réglementation parce que am benn décret boo xam ni moo réglementé na fa nga koy jëndee na nga koy jëlee bërëb sàngam yóbbu ko bërëb sàngam boo yeggee bërëb sàngam na nga koy conserver loolu lépp. ab décret moo ko tënk sa nit ñaa ngi ciy liggéey dëkk ci contrôle région de Thiès nag comme ni ngeen ko xamee dafa bëri ay carrière am ay mine am ay yoo xam ne dañ fay def explosion et d'ailleurs foofu yëpp sax nit dëkkewu fa ah ci carrière yi si mine yi amul nit wala bàyyi ma wala yu demee yooyu yu fa dëkk donc liggéey boobu nag ñi ko war a saytu mooy service régional des mines et de la géologie mais également direction yu jógee Dakar liggéey boobu ñoo ngi koy def toujours